kon Basuma Basuma Mbare jaajëf gars yi waaw nekk di composé way Sonko namm la ndeysaan booy dañ ma jaaxal duñ ne ay ah, iyaawo Sonko namm naa la Sonko namm naa dundal ndeysaan Ousmane dundal dundal ba mu kawe dundal ba romb sa dundal ba romb ñi la dundal ba suul ñi la suul booy dundal Sénégal boo leen gisee teg teggi bi mu may si teg teggi la ñuy nekk di leen préparer toujours si presse bi ndax ñoo leen yëg njëkk yëg lu xew ndeysaan adduna dafa garaaw jaay na leen basuma ne basuma mbare ku gëm asamaan di nga gëm ne Ousmane Sonko war na mën jiite Sénégal kon ku gëm asamaan war nga xam ne Sonko dina jiite Sénégal man loolu ragalatum ko quoi nekkatul samay prérogative tiitatum ko problème bi mooy waxtaan wax dëgg neex yàlla day jot xam nga rek wax ji moom du neex kenn man looloo soof samay wax ndax gat sa gat sa lay sol démarré t gat sa gat sa pour mën a compétir ak gars yi am leneen lu ñu confronté wul ñun senegal jooy beeg combat bi foog ñu xeex ko pour ñu gañe ko samay wax du dem ci lu may wax Sénégal xeex moom ci génnee xam nga dama toog tey ma lire benn affaire ñu ne le Sénégal fait face wala le Sénégal fait le Sénégal fait fas a quelque chose où ça n'a jamais eu dans l'histoire politique africaine lii lii xew Sénégal ndekete mosul am man dama toog ay mag tey yu nekk Gabon xam nga démb dama wax ak am ay mago gabone tey yu ma woo expliqué moo mu ne ma yéen est-ce que yaa ngi ni rendre compte Macky Sall li muy def est-ce que yaa ngi ni rendre compte Macky Sall si li mu nekk di def ndax si état de droit wala confrontation la créé xam nga ñun dañu foog Ousmane Sonko créé confrontation non Macky Sall moo créé confrontation ndekete li ma leen waxoon démb laa leen wax. ku wàcc sa ànd ànd boo toog lu ñu la fa jiiñ yow la te weddi ko foog peuple bi xeexle la moo dalaak Ousmane Sonko dafa violent dafa violent te man vers les années 2017 ko gisee mu toog télé di wax ma ne leen dafa nonchalant moo tax violence am bi def ma kaa mais démb laa def étude bi gis ne yeeyu askan bi la loolu en passe c'est déjà dit faxas ñu ne ñu on fait face à une confrontation entre la vérité du croyant qui est la ligne de conduite qu'a mis sur pied, sur terre ligne de conduite. Comme vous vous dites Sénégal, 94% des musulmans, la ligne de conduite, c'est la vérité, non Macky Sall a détruit cette ligne de conduite, islamique d'abord. Ligne de conduite religieuse. Et le programme, Macky Sall l'a trouvé en courant, je vous l'avais expliqué, il y avait des temps. Le blanc a réussi à métamorphoser l'esprit de nos enfants. De 1996, je me répète encore, 1994, avec la, la, mondialisation, les Blancs avaient décidé à travers un abbé pour détruire l'Afrique. Leur croyance là, pour détruire ça, il faut passer par leur par leur qui leur pureté et cette pureté pour détruire ça il faut passer par leur mère comment on installe on dégrade les sages-femmes qui étaient bien des des sages-femmes non maman mère Aminata Mboup yàlla na ko yàlla yërëm mooy ki ma si àdduna yàlla na ko yàlla yërëm xaar ko àjjana dañuy génnee sage-femme dugal gynécologue yu góor programme boobu bu ñu ko dawalee 1996 ba 2020 ñaata at la xale yi si judd am nañ 24 ans ñu ngi xeex bu leen foog ne xale yi du ñu xeex de mais inconscience naturelle les enfants sont innocents xam nga fooy xamee ne xale innocent teral bi ko yàlla teral bi muy judd tëral la sa matelas bu nooy nepp yeewlu si buum ba nga ne ngodd yeew sa jumbax ba mu ne ngodd yeew si sa xolu yaay mbaa xam nga ne xale du tëdd ci biir si biir yaayam yàlla da koy yeew da koy yeew ba mu ne ngodd bu génnee buum boobu vitesse bu xale bi mënti génnee yàlla du dagg buum ba ñi ta koy dagg ñu laar suñu culture ñun laar suñu pureté mooy laal li li africain amoon ñaan tuf li africain daawul lekk riba loolu la tubaab laal bu xale yi xeexee ba mu neex leen ñu fexe leen Sonko résister ba ñu vacance ba pare noos ak am ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso bi ak am ñoo xam ne ñu ngi xeexee naqar ñii ñu ngi xeexee ci biir stade yi ay way am na ñoo xam ay dessin lañ nekk di xeexee nii di ma dessiner ay affaire di ma ko yónnee mu leeral ne ñii commencé nañu dof waaw léegi dof boobu lan moo koy faj lu dul wàcc xeex pour wér boo jàkkaarloo régime bi mel ni Macky Sall ñëw jël dëgg def ko fen li ma leen waxoon code bii laa leen doon jox fen biy defar moo gën dëgg bi yàq lii laa wax samay début live am ustaas yi ma fi woo ne ma yow lu am ba pare noo ko mën a waxee nii wàng bi noo ko mën a waxee te mu leer la ne ñu bari ñi lañ juddoo ay oustaz man nag si laa comprendre ne mu ne mais Sénégal dëkk hypocrisie bu grave la une hypocrisie poussée dañ la ne li fi nekk ba pare loo lu ko jar nga koy wax te am na ba noppi est-ce que c'est normal déedéet foog ñu wax leen dëgg yéen xale yi yéen jeunesse bi yéen ñiy doog a dugg ci sëy bu bees maa jur ci doom ak faratax si na sunna Muhammad ba pare xale bi mënul débloqué dara mënul conscience dara doon doomi xaram carrément on ne peut pas comprendre yow baayam yaa jël yóbbu ko yaayam séddoo ko góor yaa tooñ xale ba on avance. ñu ne leen Macky Sall a réussi à faire mais lépp lu muy réussir rek dañ ko démarrer gis nga tubaab programme am li mu ñu installé nii. li xew Afrique bi yuuxoo bi chaque année ñu naan indépendance indépendance mooy jeex par force te si ñun lay jeexee à partir de Ousmane Sonko naka Macky Sall a réussi à faire du mensonge étatique de la violence clanique et de la haine pour l'autre des vérités éphémères noseya bon maanaam lu xasaw vérités yi xasaw lay wax maanaam maki moo salte politique moo salte boog en grosso modo Macky est sale waa ji dafa wax tey ba ne Macky Sall est une génuflexion lan mooy génuflexion mooy nit koo xam ne day jaamu moromam nit mooy nit koo xam ne xam nga démb turé junñu ñu ko fi ñëpp wax mooy nit kuy jaamu moromam nit nit kuy agenu moromam nit nit kuy sukkal moromam nit nit kuy martaatu moromam Macky Sall tey loolu la teg ba tey li muy rey ñëpp ne mu kenn waxul ndax dafa préparé coup bi lu yàgg biñ ko baaleeg biñ ko baaluwaat ak loolu yëpp c'est une répétition te ci guerre amul répété guerre dóor mu daanu moo ci am on avance on avance kon bu ñu bàyyiwul Sonko kenn du màggal loolu ëpp ko li nga yor si démission man rek liñ fi yor si démission militaire li nga ma paas ni ëpp na ko non dépassé na ko bu yàgg Fall li ma yor ci démission maa la ko laay lax na laa liste laa yore ci militaire yi démissionné ak ay policiers yi démissionné seen bopp liste laa si yor boobu ñëwagum si ndax moment bu propulsé am na xeex bi fu muy toll di nga xam ñu nak ñu ne démissionné ak di nga xam ñu nak ñu ne xeex kon man nee naa leen bi yëpp laay jébale si live jamais de la vie daa am loo xam ne foog nga am foog mu leer rek gis nga lu la leerul boo ko waxee gars yi ndax état jaaxle na état jaaxle nag carrément Macky mu ngi sóor sóor yu garaaw mouvement na namm nañ la bi ndeysaan mouvement bii nii xeex bi mën na sa jeex kot xale yi woy ko ñu xëy tas leen xale yi léegi stade yëpp moom la ñuy woy mu leen di neex mu leen di naqari nawetaan ministre de l'intérieur def koy tëj code nga xam na ne <laughs> mën nañ fa jaar yoxosu ko nawetaan da ngeen di xaar kon foofu du point xeex bi point xeex bi mooy gars yi gis nga foog ñu ñamante wax dëgg gis nga tant courant bee ngi tàkk gars yi ngi tëdd ci ventilo yi boîte yeeg baar yi xoolal nu muy feesee ay almati tey Wally Seck tey mu ngi tëgg fële c'est normal mu tëgg mais ñaata moor ngeen tëdd ñu ne leen yéen yéen a rey yéen ñu ne leen yéen Ousmane Sonko mais ñu tëdd hôpital muy grève de faim moo rey nit ñooñu ak yéen patriotes yi mais concert yooyu ñaata booy patriote ñoo fa nekk ñaata booy conscient ñoo fa nekk c'est des loisirs loisir kenn tere ko mais dafa am moment bu ñuy loisir ak moment bu ñu dul loisir nag booy. kenn new leen bu leen foo nañ leer rek kenn new leen bu leen foo mais foo daam waxtu foo da nga koy teg ci temps foo ak xel bu dal mais léegi ngeen dem foo fi ngeen ni foo explosion am fo Antoine Diome rey leen ñu ne léegi ñu ñoo leen rey. commencé nañu organiser concert bi yéen waajur yi yéen ñi di bàyyi seen doom yi di dem ay concert yooyu je vous avertis plan Touba bi dañoo mbaw a mbaw a mbaw comme ay bëy daw nañ ko avertir naa leen nag ku ci sa doom tëb ci bois de nuit dee wala ñu ne accident am na si tel boîte du ñun Antoine jom la encore une fois ak Farba ak booy Jérôme ñu ngi préparé waat ba jënd nañ seen ay mine mine laa leen wax waxuma leen ay grenade ak loolu di miin dañu jënd xawma ma seen yan boîte moo am parking souterrain dakaar xaw ma ndax Dakar man du ma dugg katu boit dëgg neex yàlla attentat boobu dina am gis nga attentat bi ñuy ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw bu ñu yéexee si xeex bi gis nga ñun bu ñu gars yi ñu ngi wàcc rek ku nekk dañuy màggali ba ñëw non est-ce que duñu lii kenn du màggali boo leen màggalee itam doo leen naan ndox boo leen màggalee lu mu leen di wax rek ñuy liggéey pënu oto dinañ doyal xaalis ren man moom samay wax dama koy def li may wax dama koy def li may wax dama koy def te incha allah naa ko def courant bi gis naa leen tuuba booy yi foto nañ ma la ngeen wëral la fa gendarmerie moom fees jël kon xamoon ngeen fi ma jëm code encore la jeunesse plan Kaolack bi am na lu ci desaat ndox bi taxaw na mais xam ngeen li des ñun bi ñuy manifester lépp dañoo coupé woon internet bi mooy la Aliou Bongo di pare def moom la ñuy Macky Sall defoon. xam nga moom la ñu defoon màggal bi non moom la ñu defoon si manifestation yi non coupé suñu internet def lu leen neex booy bu yàq jotee lu waay mën yàq na ko yàq lu waay mën yàq bu yàq jotee na ko yàq. Touba ku nekkay toog di Sénégal ak loolu xoola ñu naan internet bi waxuma leen lekk de nañ ko naan en attendant. code xam ngeen fi may waxee ma mes jeunes beneen combat bi gars yi propagande bi propagande innocente di ngeen ko gis si ñu bëri ndax dina am ci politicien nguur gi ku ñuy commencé teg lu saf-saf te effectivement dañ koy teg lu saf-saf ndax sàcc xaraama te njaay la doome xaraam la man je ne serai jamais d'accord avec lui ndax pël la te pël du mbokk pël ak tukulóor ak alpulaar bokkul demal Casamance béy nu ngi koy jikko pël lañ yor buy ñàng duñu participer si xeex dañuy xeex bàyyi laak sama xeet noonu la ñuy def dañuy seey bàyyi laak sa xeex est-ce que ay pël lañ est-ce que ay pël lañ non non c'est pas des pëls est-ce que yaa ngeen may suivre moo tax pël bu ñu leen ne pël rek gars yi nag dañuy xaajaloo dañuy xaajaloo déedéet boo demee ñu ne la wolof yi Ziguinchor ñaata wolof a fa am dafa def ba joolaa kaasa ci kaw boo xam jaakeen wolof kon est-ce que affaire yi ni la wala jikko la ñuy waxal bàyyi leen di jaxase nit ñi ak adduna jikko ak man maa ngi ni naan rek laa bañ laa ilaha illallah arab def naa ba arab du ma jiite juma billahi wala talaay France benn yoon laa julli ji juma gis arab du ma jamais xaraama fii sept ngi nii xara dam fi xaraamal julli juma aw ma ci kersa arab du ma jiite te pourtant rasulullahi rek laa bëgg jikko ja la ñuy bañ wala nit ka ñuy bañ jikko ja la ñuy bëgg wala nit ka la ñuy bëgg jikko ja politiciens yi war Ousmane Sonko wolof yi wër Ousmane Sonko arab yi wër Ousmane Sonko ñoo ëpp aywa bu ne solidarité ñëpp di kay si ñun kan moo solidaire kaa leen ñu xeex nga dégg ku nekk naa dama war dem campagne ak sa morom je ne maa ngi contacté yenn membre F24 non c'est que Khalifa day lii noo c'est que diw day lii je m'en fous man Sonko laa la ni nañ ko ñëw défendre benn bopp benn kaddu benn doole benn poignée dóorandoo parce que moom bi mu jotee dafa ñëw dóor seen côté yéen kaa lu ñu dóor si côté ba keroog muy jóg taxaw fa lay waxee kon mais pas di leen participer ay Amadou Ba wala di wax si keneen man du ma genre boobu négatif négatif Bougane lépp lu mu xeex ba jotee gars yi couleur yeeg yëpp si suis au lépp négatif te bi mu la doon supporté it tey l'histoire m'a donné raison Barthélemy wane na jikkoom pourtant Barthélemy la jëndee woon ba dégagé la Cheikh Bamba Dieye Barth taxoon dégagé ni ñu dégagé woon ay kii Abdou Mbaye yëpp yëpp Barth taxoon dégagé parce que ñoom ñëpp bëggoon jege Ousmane Sonko ku nekk fi Barth place u bi ay eh waay ñëpp ko bëggoon pour lan suqali ko politiquement mais politique moo demee nii il fallait que Barth dugg si moom wan leen ni Sonko dafa violent or pour moi Sonko était moo tax violence bi ba ñëw imposer ko Sénégalais ba yéen patriotes si boppam ngeen nangu ne yéen da ngeen a violent te fekk violent wu anamu tey. ñëw ñu dugg si manifestation bi ñoom ñëpp génn ne dañuy dem jëli Ousmane Sonko 2021 ñoom ñëpp génne seen i partisans Barthélemy Dias génnee ay mafia am taal dëkk bi wane violence bu Ousmane Sonko am. lépp ñu teg ko ci noddu Ousmane Sonko ci code ak ci temps. di fexe di roppaj gars yi wan wan roppaj gars yi wan wan wan ba bàyyi leen ba tey nii nii nii ñu bëgg ñu ne Pastef ñoo violent ñoo doon xeex yéen tam peuple bi chaque jour ngeen toppati leen xeex ne leen xale xeex ne leen xale xeex waaye est-ce que yéen xale Pastef yaa doon xeex est-ce que xale Pastef yaa nekk ci kaso bi est-ce que xale Pastef yaa doon xeex est-ce que xale Pastef yaa nekkoon ci kaso bi non yàgg naa leen ko wax xol yi di dog man leen xeex bi daa am lu koy doxal ndax Bart xam naa compagnie Bart xam naa compagnie yi Grand Yoff xam naa compagnie yi secteur yëpp xam naa compagnie yi je connais tous les beaucoup de compagnies de combat laa xam Sénégal chef de compagnie yi ñii mamaay ñu ngi États-Unis ñii ñu ngi biir Touba tëdd ñii ñu ngi Galaya bi ci ay vacances Mbour waaw mais chef de compagnie yooyu am na si ñoo xam ne état da leen nar a sacrifier na démb benn booy ma live ndeysaan mu wax ma wax bu dee mu ne ma i grand xanaa yow da door a yeewu ultime combat bi jeex na endurance dix mille mètres booy billahi gis nga tànk rombo tànk rombo ligne d'arrivée bi boo xamoon sa xottu taati la muy sab éy athlétisme booy boo xamoon boo leen xamoon boo leen xamoon combat nooy def ba yegg si gis nga boo leen xamoon li lay génnee ci geer boo leen xamoon fi combat bi toll nii boo leen xamoon loisir yu bëri xoola da ngeen koy teg à côté man mii di wax ak yéen mosuma perte quatre-vingt-dix minutes n'importe quel match je n'ai jamais perdu quatre-vingt-dix minutes jamais de la vie de ma vie jamais boo ma invité match damay xëyal ay bañ a togg mosuma perte quatre-vingt-dix minutes du ma perte quatre-vingt-dix minutes ndax doomu aadama jamais de la vie toog di seetaan Sadio Mané quatre-vingt-dix minutes non je préfère déglu résultat yi yuuxu comme ñëpp am lu mu leen di wax ñaar yooyu man ma mamaay xam nga lu ma tal musculation xam nga maa ngi sport lu bëri mais musculation bu graaw laay def ci xam nga lan sama cerveau sama 250 grammes yi laay musculer pour mu taxaw 250 grammes yi noo koy musculer booy foog ngeen di jàng di jàng di gis fan mooy seen code di gis yéen fi ngeen war a tegu xam lii mooy gauche lii mooy droite tey gis nga boo leen xamoon lii mooy gauche lii leen droite bii heure kenn du dem sorti bii heure kenn du dem boîte dañ naan xoola bu ñu jeexalee xeex ren normalement dinañu mën noosaat 10 ans. boo leen jeexalul xeex bi gis nga lu xeex bi gën a yéex seen noos di gën a raam seen noos di gën a metti ndax denrée de première nécessité dund yi day yokk courant day yokk ndox day yokk lépp day yokk ndax loolu la Macky Sall di jëndee arme seen noos yi ngeen di noos bie yii nii ngeen di jox Macky Sall di koy jëlaat jox ko police yi ñu ñëw jàppaat leen tëj leen bie yi ngeen di fay xam ngeen noos lu muy yàq ci réew kenn terewul kenn noos de mais réew daa am fu muy toll ma may saaku soble dem ba ay vingt mille Ziguinchor entre 5000 francs entre 10 000 mu fees jël inna lillahi wa inna lillahi raji'un moo tax su may wax sans état d'âme ngeen foog tey man tey man tey Sonko dinaa tey xeex ba ñu fal ko 2024 mu bàyyi perversité bi am ci dëkk bi à travers la jeunesse cette perversité qu'on se dise la vérité booy li ma leen waxoon rek gynécologue gi ils ont gagné xale yi léegi dañ ma yónni ay vidéo piscine ñuy màccante ay xale dix ans douze ans dem ay mbuur cette perversité xale yi toujours les enfants pensez-vous que tey bu ñu delloo waatoon tey éducation tey retourner tey à l'école sixième secondaire boo fa ñëwee ñëpp sol tenue carré yokkaat surveillant école yi wàññi programme yi libéré professeurs yi ñu def ñu comme ñun suñuy professeur man njaay élément daf ma doon tendre par quatre jo indien daf ma doon tendre par quatre ñi jàngee Thierno Souleymane Baal xam nañu lu may wax ak monsieur Ba yàlla na ko yàlla yërëm nanki mu ngi dund man samay professeur dañu doon tendre par quatre man loolu man dama ko dund man jusqu'en quatrième samay professeur dama doon bëkkanteex ñun ñu noq ma noq metti métti mais samay jàngalekat la ñu woon j'accepte man benn yoon laa dóor élève ñëpp muuroo ma génnee ma est-ce que bu ñu delluwaatoon tey ci éducation tey bi fi waxuma éducation maam ndax éducation maam moom c'est catégoriquement dépassé ay xale du def lii xale du def lii xale du def lii bàyyi di lekk di takk jabar di dur rek dur dëkk bépp man gëwuma loolu man moom yenn maam yi moom je vous dis la vérité li ñu fi bàyyi gaw ma ko je ne crois pas alors je gaw ma ko man américain la ay naan kii du soccu lii kii gaw ma ko ay naan kii ñëw wala sax kii wax la dara ñu ne la non bi la nga ne kan moo ko ñun la diine bi je ne crois pas man boo ma lii bi daala ma ne sa gàmm gi ngay gàmm bi la point final ndax yonente bàyyi ko fi point final lii bi la sa màggal gi ngay màggal bi la aywa lii bidaa la sa ngénte gi lan moo dul biddaa Sénégal loo xam ne duñ ko def lan ban biddaa lañ dul def Sénégal soo waxee ustaas yi di meeting ñoom ñëpp dañuy commencé fayee ko comme ku nekk weeru koor lii muy def ni bu ci dafa xaru xaala laaw lay nee na yéen xanaa xaala ay dey Macky Sall moo leen wax pour ngeen wax xaala ay ma Marème fay Sall moo leen jox xaalis vidé na ay comptam ba pare ah à taux de neuf cent et quelques milliards servir le Sénégal loolu la servir Sénégal et la vidé ses comptes léegi dissoudre na affaire bi point final on perd personne daf fi ñëw pour raxas faxas kii mooy personne mooy général <laughs> mais respect surtout <laughs> tey ay bandi la leen ma ngi tegal ngeen bëgg a ñëw naan ko anytime di xeexee anytime ñenn ñi naan fokk yaayu Sonko dugg ci ak jot femme yu bëgg a jëndal billet d'avion yaayu Ousmane Sonko bës bu ñu yëkkatee yaayu Ousmane Sonko singulariser xeex bi moom kese juratul Sonko waxtaan dëgg dëgg rek moo ma sonal man maire Fangom yow yaa ñu andil kii mu nekk ci àdduna mu ngi mel ne ci Timbo moom mi ñu andil doomi xaraam bi jiite 17 millions de sénégalais yow yaa andi koo xam ne quinze millions de sénégalais bëgg nañ ko. ñun ci suñu tradition ñun Sénégal ci suñu tradition boo génnee ci koñ gi ñëpp say yaay lañ ñaata maire jooy pour Ousmane ko ñaata maire koy ñaan pour mu bàyyi grève de la faim bi. yaay nag mooy wax waxu yaay de contre ma si saa yi wax de waxu nday ngeen wax waxu yaay dëggantaan ngeen wax. nañu yóbbu yaayam pour mu dem lekk man sama yaay mënul si man dara man tey bu nekkoon maa nekk position Ousmane Sonko sama yaay mënul si man dara ndax xam nga lan moo tax sama yaay Sénégal la juddoo man Sénégal laay xeexal kon Sénégal moo ñu gën maax sama ndey ndax fa lañ ñuy suulaat Sénégal 17 millions d'habitants 9 million de femmes 9 million de femmes ñaata màgget ñoo ci am même bu dee 2 millions de màgget ñooñu ñëpp ay ndeyu Sonko lañ ñaata meeree génn ak seen bekk ñëw manifestation di ñaanal ngeen naan ma ne ñëw yaay Sonko kon yéen ah, kon yéen dangeen ngeen foog ni Ousmane Sonko daal ndeysaan ah. xamu leen valeur u xeex c'est man moment yi ñiy jooy ci Ousmane Sonko kawam gars yi foog mu bàyyi ay sécurité je vous ai averti le premier jour bi mu ne grève de la faim ma jàmm na bàyyi leen ko ci suñu réunion de crise ba parce que il a donné le flanc flanc bu mu joxe noonu la ñuy exploité. il va laisser des séquelles c'est automatique aywa Sonko karaté na fi yéen ñëpp karaté ma toog di ree Sonko football fi di passanteeg Jibi Ndiaye ñëpp di passanteeg Jibi Ndiaye eh, wante ba mu woore kenn wooru ku woor man mii fi solidarité ñaari fan rek gañ dem charge conteneur tuuti ma dee dama ne mu yéen lii la nii far ma dem consulat ñami lacrymogène mën ne mu yéen kon xale Dakar yaa ngi dee bouton boo gars yi gis nga ñit munoo ñëw mën a combat douze rounds voilà Macky douze ans la def non douze rounds de boxe la boxe nañu onze rounds booy calculer si point Macky mu ngi taxaw di mën na dóorante Sonko mën na dóorante ba tey moment bi benn round na des benn round te round bi ay minutes si des ñoom ñaar du douze rounds yi Macky ngi dóor gars yi ñuy daanu amul ku Macky dóorul mu daanu mu dajeeg Sonko di doorante ba Sonko am kiling kiling kiling ñun ñu jekk woon fi Macky Sall tey ba toogloo ko arbitre bi ñëw ne noo foog mu def nii foog mu def nii ba dem yokki doole ñëwaat tey dugal ñu ko yóbbu ñu ardo ñu ñi dem faj ma may ardo lañ dem dañ ñuy faj ardo ñaata temps lay jël xoolal làmb ji ardo buñ la ñu tit ñaata temps lay jël Balla Gaye premier combat am ak wante fiyoom lu mu fi jël ñamul tepp mu teppeeku wala kon yéen da ngeen yaakaaroon bi Sonko di wax bi mu leen naan xaar leen nee na gatsa gatsa mel yi nii lañ koy gañee nekkul dañuy xëy rek ko combat bi parce que état la mais kenn am na sama benn live ma leen état état kenn comprendre lu may wax ci état état état état état parce que vous êtes méconnaissable de l' état mais sama mot yooyu dootuma ko répéter parce que tout le monde connaît maintenant ce que c' ku toog di jooy na nu Ousmane Sonko lekk wala dafay xaru dangay ngay fen moom moo war a am yëg-yëgu man su ma doon xeexal koo xam ne boo ko piisee sax mu ubbi tànk yi su ma xiifee ñaari fan mu dëgër ma rasu ndax damay xam ne damay gagné Sonko dafay xam ne day gagné mais comme injustice lañ ko teg mu ne woon gars yi lu mu gaaw gaaw gaaw jëlee leen ma fa ñu ne takk état de siège bi jog moom si boppa moo ne freiné Sonko éviter kawo bi pas Macky Sall loolooy bëgg a dagg xolu gars yi yaa ngeen may laajte mais booy xoola de xoolal xam xam fan laa comprendre ay bindee ay kilifa sama groupe bi ay ay ay gang dem ne waa waa booy doo leen doo leen noonu ndeyam xeex ay ragal ngeen <laughs> ma ree man leen père mbi pa naa leen nokk te population heure buy jóg day fekk moment bu propice bu ñu jógee dañuy jàpp waa ji jeex na te bés bu ñu jógee Macky Sall ñi mu àndal si boppam ñoo koy yeew pas ñun ñun bu ñu jógee xam nañ fi ñu jëm te dañ fay yegg. mille et quelques prisonniers xam ngeen ñaata lañ jàppaat weekend bi seize personnes weekend bi nii bii rek man xam naa seize boo yoo xam ne dem nañ leen fekk seen kër jàpp leen te kat nee nañ tuyoo bi Touba la tojee de <laughs> moment bi xoolaat tuyau bu tojee Touba ñi daw ba Thiès dem jàppi ay nit gars yi vous vous trompez ñii xeex gisagoo leen ba tey ñii xeex bés bu ñu njëkk si Macky Sall dañ koy rendi bil deex yi dañ koy rendi maa leen gën a wëyu quitte à ce ñu dem élection deux mille vingt sept wala deux mille vingt neuf on s'en fout xam nga yéen a nekk fii di calculer ay gauche droite transition Sonko bokk na bokkul man déggu leen li ma leen wax avocats yi ils ne vont rien régler absolument rien absolument rien laa leen wax rien ku leen avocat yi nii mën nañu régler dara ci Sonko te Sonko demul toog ak Macky Sall waxtaan waxul dëgg soit Sonko day tam toog ak Macky waxtaan ñu juboo ci ay kàddu wala tubaab bi sauvé ko bu ko tubaab bi sauvé nag boobu nag day dugg ci système bi su boobaa ñu ne dañuy jóg xeexaa tax moom kon foog ñu xam li ñu bëgg ak ak li ñu yéenee waa ji ku nekk di nga xeex à ta mais fu ay blessé demee ba jóg di réagir ci ay combat yee ñiy wér d'accordoon naa seen vacances yëpp mais ñit kuy fo dangay tal la ngay fo lan la da gis la ngay fo lan la ndax bu ñu tasee benn plan mu échoué yaa ngeen ne way Sonko ñu tere leen ko finalu senegal ki ma leen doon wax mafia bu gën a rëy ci presse bi ay ñoom du Ibra Kane ak ñii ñëpp c'est archi faux c'est le système de DJ Boubs qui est là-bas Boubs si boppam moom mooy jóg ak ñoom abaa Mama yi pour ne leen na xale yi bàyyi war Sonko booy ku leen na bàyyi bàyyil war woy Sonko boo leen ko woyalee oo oh, yee eh, eh, iya oo oh, Sonko namm naa la Sonko namm naa la ku ñu ko tere dinañ toj soo jaw waaw saaga bi mooy loolu kot qu'est-ce que c'est que ça ay nga war a toog stade mais bu kenn wax tuuru Sonko parce que la yi boo leen naan ISEM ñoom dañuy gis Macky Sall Marème Faye Sall fekk waay yow yow jaaykatu café Touba yi ci ISEM bi la ñu bokk. butiku mbedd yi ngeen di gis Sandaga cantine yi noonu yëpp c'est pas normal la ñu bokk. arrêt de centenaire Sandaga cantine yi nga gis sibiti noonu yëpp c'est pas normal ci ISEM la ñu nekk. munoo ñëw buntu magasin jàmbur nga lal fa nday sa cantine ba pare na da ngay daan sa doore négatif tu détruis l'économie parce que t'es pas solidaire t'es égoïste man égoïsme boobu laay bañ ci économie yéen kaaw bi fii nag rassemblement général man li ma leen wax rek état de santé Sonko moom du ma ci wax maa njaag maam njaago man du ma wax ba pare may am xel ñaar li sama si non déedéet man samay maam laa gëm seen wérdi yii nii je ne crois pas gëw man def naa ba man sumay may wérdi lay lax ila laa pare naa ci ku dul Mouhamed du ma la tudd aw ma ci kersa ay toog naan bii wérdi diw la wérdi tijaan wérdi murit non non non négatif man maa ngi ci yàlla ñaar la zunjat ak zinjat loolu c'est des mots juifs xap yàlla ci dee la nekk phase ak ne moins ak plus la courant yeeg lampe yeeg yow sa servo liy dawal sa yaram yëpp yàlla ñaar ñaar la ko def benn bi ci servo bi benn bi ci xol bi ñu def ay démembrement lan moo tax ñu ne la deux lignes ay raay dañu parallèle noo lan moo tax bu nit ki paralysé dootul dox deux lignes parallèle jub xocc ba pare ñu ne la Quand la personne est paralysée, il na marche plus. Pourtant, quand deux lignes sont parallèles, ils ne se rencontrent jamais. Mais quand la, pourquoi la personne, si elle est paralysée, moins beeg plus bi yàlla sàkk ngeen ni ko branché courant moins beeg plus boobu gis nga sidit yooyu nekk sa cerveau ak yooyu nekk sa xol moins beeg plus bi bés bu laalantee nga paralysé parce que AVC ni muy lakkee nday beneen affaire bi la Macky Sall ñaata nit nga lakk ñaata maire AVC ñaata paawa AVC actuellement si lan paralysie seen moyen plus la Macky Sall boole ndax lan xol bu tàng ba pare yéen xale yi ngeen ne di dem concert pour sauver Ousmane Sonko. am boo yu ma woo grand yónnee ma passé man ci patriote laa nekk après damay combat boo ñaata at nga mu ne ma 16 ans ma xam ne doo voté su ma ko yoree dama lay yónnee ndax xam naa ne doo voté <laughs> xam naa ne yow li ñuy xeex mi dëgg ñu bokk nii rek mais doo voté. tu nous amènes sama doom laa lay jàppee damay xam da ngay tipsé bu dee benn 5000 bu mu ko yoree orange money dama la koy balancer garaawul. mais booy yi am ay vingt ans nii laaj leen maax ñoom commencé woo dama leen va te faire foot wàccal ci terrain bi xeexal sa bopp booy boo xeexee ba pare ma kii la kii nag xale la âge bi. parce que ku sañ woo la yow nga koy woo muy dem di combat tey mu woo la ne damay dem concert kooku si la te conscient da lay wax loolu. xale bi nag moment boobu gis nga boo ko rejeté mën na la bañ yàq Ousmane Sonko man du ma rejeté foofu képp. ëllëg su ñu la xeexal di nga xeex tolluñu moment bi gis nga fu ñuy rejetante rejetante bi dafa commencé diw nii diw nii déedéet te moment yi bloc ñu war a def gars yi foog ñu def bloc foog ñu def bloc foog ñu def bloc waxkat yi foog ñu def bloc géwél yi foog ñu def bloc géwélu passif yi foog ñu def bloc kiiwu yi ñu def bloc patriotes yi nag laay lancé un parce que gis naa ne patriotes yi ñoo gën suude ko waa passif te ba pare damay gis affaire yu ndaw ndax damay dem manif entre les patriotes et waa passif waa Pastef man mi gàddu sama guitare man man man mi gàddu sama guitare dara soxlaa ma ko seen parti foog ngeen yaatal xol yi tuuti parce que foog xol yi ubbeeku il faut que ça s'ouvre man il faut que ça s'ouvre moomu leen ñu moomu leen Sonko seen idéologie systématique bi ngeen bëgg a demee te ñun ci anti système la ñuy woote déedéet fépp lañ may boolee Pastef man mii yi dama koy dund si terrain bi mais comme man je m'en bats les couilles su ma sañoon sax du ma wax si manifestation man je bal bats les ndax du ma star kenn man Sonko laay dugal ni sama pare je continue ma route sama guitare laa yor j'ai pas besoin de vos petits pastos là pour être politique ngeen def benn dix ans xëyiwaat ñëwaat di la ngaamu si nit yi j'ai pas man beneen philosophie laa am beneen objectif dama leen pousse donc bu oto bi tàkkee bàyyi bàyyi laa leen di wax cassez-vous donc su may ñëw ci combat bi wala panafricain yi bu ñuy ñëw si combat bi xoola yaatal leen dënd yaatal xool yi Pastef ce combat là ça vous dépasse. attendez semaine bi yëpp dañ naroon taal gars yëpp fépp kan moo génn si waa Pastef naan Pastef y a des voies autorisées waaw léegi ñu bàyyi leen ak seen voies autorisées man concert casserole du ma ci wax parce que vous avez des voies autorisées pour déclencher ça xeex bi nekkul ay voix autorisée xam nga xeex bi lu mu am mbooloo mbooloo mooy lan amatul voix autorisée amatul voix banalisée nañu def comme Macky Sall ku taxaw saagantey mën a la loo ci mun yokk xeeb ko saagal seen tey ñoom ñëpp gars yi di gën saagantey Macky di leen a gën a financé ñun nag da ngay saagantey waa Pastef ñoo njëkk daw ah bokkul si ñun bokkul si ñun espèce de fumier est-ce que noonu la ñuy xeexee Pastef eh, moom la ñu revenir à la raison ñoo leen mag si politique gën leen xam politique bu dul woon Sonko nii tey bu sonkoo ne woon man noppi naa ma ñàkk sama ndey waa Pastef wéet bit deux tey bu Sonko dégise woon waa Pastef wéet ma ñàkk sama ndey ak sama bay kon ngeen xam ne Sonko kese mooy quatre-vingt-dix-huit pour cent de l' électorat de Pastef moom à lui seul te bu Sonko tey génnoon tey bu gàntan yi jël def ko ci mouvement gëm sa bopp tey ngeen xam ne tey Pastef du gat falaay waxeex yéen ubbi leen xol yi affaire bi Sonko la de bu leen foog ne Pastef la ñu soxla on n'a pas besoin de vous ni de vos compétences nii dafa projet man Ousmane Sonko lay joobal point pour muy clair boobu Sonko lay jàppale. France fii benn booy laa fi gis ne oyof na xaw na taale bébé au moins am na ouverture d'esprit mooy booy Issa Sall député bi moo nekkaloon démb moo tax démb ma ne ko damay topp si ginnaaw yaatal leen xol yi pour combattant yi ñeme dugg. yaatal leen xol yi pour ñu weeree ba pare am na ñoo xam weeree nañ ba noppe waa wala déet. mais koo ubbilul est-ce que dina amaat fi tu dugg yaatal leen xol yi gars yi yaatal leen xol yi am na ñu bëggaat dugg si am na ñu bëgg xeex mais danaan man li mu fi wax déedéet ñëw leen. moment bi ay combattant la ñu soxla bu ñu amoon six mille hommes dix mille hommes moo ñu gënal waa Pastef li ñu lay xoolee li ñu la xoolewul on s'en fout ñëw leen ñu rejoindre rang yi yéen ñi ñeme xeex ñu xeex xeex bi mu jeex. xeex xeex bi mooy génne Ousmane Sonko fa la mu nekk yóbbu ko Casamance dem faji ko bu ñu ko bàyyiwul maa ngi waxaat maa ngi waxaat ma ñàkk sama ndey màggal gi lu leer laa leen wax di ngeen gis loo leen mosoo gisee màggal Touba d'accord Touba moom suñu yoon nekk si mais vulgarisateurs yi daañu job courant ak ndox di ngeen ko soxla mu te leen internet yow nag Macky Sall yaa ñu coupé woon internet internet bi yow it fait tout au possible ba yóbbu camion militaire yi ñu dem ravitailler Touba ak Diourbel ak yëpp ndax xam nga fi ñuy waxee les jeunes code bi mooy tey la ngeen jàppale booy ci combat bi ndax ñun moom duma leen na bu ñu ngi toj li ñuy toj ñu ngi lakk li ñuy lakk tiwo yeeg yëpp day laajte ay transport ay paas dem toji paas dem <laughs> yàqal Macky Sall ñëw toog mënuñu si dara ci combat lañ nekk moom mooy ñaaw na ba noppi lu waay yàq na ko xeeb lu waay yàq rek na ko xeeb ngir yàlla la jeunesse seen fecc wayi way yi du ma leen nëbb de buñ leen dóori li explosion yokk acte terrorisme bi nag ba ne nag ñun nag dóor nañ acte terroriste bi nag c'est fini dem nañ état de siège balaa ñoo yegg foofu nag provoquons la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer xam naa lu ma wax gars yi ngi waajal beneen projet te projet boobu ñu ngi ci di benn benn préparez-vous en conséquence mouvement nawetaan li ngeen di woy Sonko nii gars yi ngi wax ñu ngi di avertir soo moytul day ñaaw de te day gën a ñaaw dafay ñaaw te day gën a ñaaw ndax Mansour Faye dund na ko tubaa en rek day ñaaw te day gën a ñaaw yeneen laay fëri nag ñoom dinañ ko jot dugg si détails yi lii la ñuy def gauche droite gauche droite gauche droite c'est normal parce que man xam ngeen rek yàgg si ligne bi mënuma ko dama teg sama caayan nii ak sama guitare yi ba pare sama naqaru xol yi waaw góor laa de devant yéen ñun ñëpp ay góor lañ mais waaw njaboot gi moment bi moom xel bi yëpp fay jaxasoo day la ma joo parce que li ñuy wër ñun ñëpp soxla benn affaire nii dama nekk si beneen xeex nii boo leen comprendre gars yi dama nekk si combat bu extrême boo xam ne maax waa Macky Sall la du waa du Sonko laay xeex la de mais bii pas sama bopp laay xeex la pour sauver ma nit sama bopp. ndax maa fa bàyyi ñoo xam foog ma sauver leen ñoo xam sama responsabilité la lu leen mënti dal ma maay j'ai moo tax maximum de concentration yërmande ngi ngeen may bëgg a woo si suuf soxlaaw ma ko. concentration ci Ousmane Sonko mii la nañ ko fexe génnee andi ko Ziguinchor mu faju su boobaa ku mën a gën a mas sa gauche at lii sa doom bi woy wii ku ma yërëm rek la sama rab bañ encore une fois je me répète ku ma yërëm la sama rab gën a bañ ci àdduna ndax maay demal sama bopp boobu rek la sama rab bañ gars yi gis nga ñenn ñi da ngeen foog dama ñàkk kersa ñàkkuma kersa moo tax ku ma woo noon ma Sonko gauche du ma la faale mënu ma a tontu nga woo ma naan ma non sa doom bi gauche munu ma la tontu parce que ma yërëm lay bañ man yooyu da nga ma koy def da nga may jooylawaat delloo si waat ma en arrière te moment bi avancé naa ba pare romb naa loolu damay xeex ma yi ñun Sonko génn ñu imposé ko xeex ak nday Macky jëlee ko fi si en avance yéen di ngeen yi ban laay fër ngeen gis ñuy saalit laay fër yëpp ànd dal parce que xam nañ fi ñu toll yéen a xamagul fi ñu toll mais ñun xam nañ fi ñu toll comme léegi nag on a trop de top mënatuñu génnee lépp c'est impossible yan laay ñaan rester concentré rester vigilant ngeen mun jàppale booy numéro yi foog ma koy sécuriser moo tax léegi yëpp sama numéro bële laa koy jaar pour man ko ku ma woo mën la yónnee ko diw. espion nag bu am numéro France fii nekk Sénégal ba jéem maa woo ak yooyu ba jéem a man numéro foo ma munti woowee dinaa xam foo ma woowee c'est pas la peine de couvrir vos numéros Ousmane Sonko ni ko dal c'est normal dafa xiif ku xiif perte connaissance ku ñu dóor perfusion ci xeex la nekk. tey bu xeexoon moom ba sàngoo suuf ay malaaka kay teeru malaaka àjjana yaa kay teeru ndax ci combat bu garaaw la dee ci noblesse bu metti la dee ñun ñun mamaay xale Casamance ñu mbégte la ñu am ak fiix ci lu Sonko tenir nii mbégte ak fiix ndax kenn accompagné ko si bii baa kenn dina maa xeex li Sonko man ak yow ak ñi may seetaan ñëpp ci yem kenn woor fi li mu wooragum waaw wala déet ñun ñëpp a ngi lekk suñu kër yi ñu ngi vacances kon bii pas Sonko moo xeexal boppam bu génnee moom moo génnee boppam moo xeexal boppam ñun ci biti lañ ko xeexle mais fee mu nekk ne moom moo fay génnee boppam mais du ay avocat ñoo ko fay génnee du négocier ak Macky Sall moo ko fay génnee te loolu maa leen ko promettre Sonko moo fay génnee boppam te du négocier ak Macky du négocier ak avocat ñun nag ci ñooy fatt lépp pour gën ko yokk confiance ndax delluwaat kaso moo koy gënal Masla ak Macky Sall il la pris cette décision c'est fini delluwaat kaso te comme nee nañ leen vous avez des soi-disant voies autorisées là vous n'avez qu'à dire sa Sonko option yu mu am du Masla ak Macky dugg ci bàmmeel comme ni mu leen ko waxee woon si baayam dem na ci bàmmeelu baayam no dugg si bàmmeel moo koy gënal moment bi jàkkaarloo Macky négocier wa ilaa bu ko yàlla joxe ba kenn delluwaat kaso bi moo koy gënal jàkkaarloo Macky négocier coupure économique buñ ko defee mu génn coupure social bi Macky Sall réussir na ko ñun nag coupure économique bi lañu ñu war réussir kon la jeunesse restons prêts et soyez dévoués et éveillés combat bi day am de neex naqari day am ci 06 05 59 96 00 balaa ma koo fàttewaat saa mu rëcc mi la jeunesse restez éveillés soignons nos blessés et attaquons le combat tôt ou tard day am Sonko nag moom bàyyi leen di ma woo di ma laaj nu ma ndax il va bien basuma basuma mbare seule la lutte libère et on va gagner nii laa leen fànn bëgguma kër yu bëri bëgguma tapate bu kenn tapate bu kenn kër fii waaye fii mooy affaire bi bu kenn tapate bu kenn kër parce que tam saa yi booy concentré wu dalay perturbé carrément ci live bi moo tax nanguwuma ko. je préfère jox booy Facebook ñu jël ko non YouTube ñu jël ko direct am na beneen booy bu koy jël chaîne les pro Sonko pour éviter fii seen kër yu bëri ak tapotage bi moo tax ma naan booy bi jël ko direct pour man fii danaan teg am cent personnes rek jàllale sama message moom mooy gënoon basuma basuma mbara